ñoo bëgg foo xam war a foon c'est-à-dire dafa nekk un débat boo xam euh, de de l'éducation et de l'enseignement ñu yóbbu ko ci débat religieux c'est-à-dire moom loolu mooy sama problème boo xoosee contexte bi que premier ministre waxee c'était mooy euh, les récipiendaires yi ñëwoon au Grand Théâtre nga xam ne bon doon réussir seen concours général ñoom lañ doon euh, récompensé am benn ci élèves yi posé que la question par rapport à l'olu. et me répondre minimum ni moom loolu am Sénégal on ne peut pas diviser c'est-à-dire les Sénégalais par rapport à euh, dans les dans les temples du savoir c'est-à-dire dans dans dans, l'éducation Moi, je parle de l'enseignement je ne parle pas de la religion Vous bu que ni que c'est que c'est là. bépp doomu sénégalais ngay chrétien wala ngay musulman wala nga nekk ci beneen euh, diine am nga droit am accès l'éducation c'est un droit fondamental ci élèves yëpp xale yëpp donc man mënu ma concevoir aussi euh, bon affaire mu gendarme la mun koy tudd tey ñoom ñuy wax ni dañuy renvoyer élèves parce que dañuy voiler et leur seul argument est que récréation bu jotee wala bu nu toogee biir classe. bu biir classe je ne peux pas concevoir ngay góor nga ne doo toog benn benn benn benn ibaadu wala ibaadu bi ni bu ma jege parce que góor la mhm. loolu dama ko dàq. mais la récréation bu si am nga say xarit nga taxaw non ils n'ont pas déploré. non c'est non d'après non non la bonne version. la bonne version qui s'est tenue en 2022. non on est on est géopolitique on est on donne la bonne version. la bonne version c'est que non la bonne version. la bonne version que musul mhm. dem suñu ci classe bi indi séparatisme ak

régler en bas mhm. sans autant que mu wax publiquement mais lolu daf ko mës a contesté moom depuis que Macky Sall euh, bon a fait profil bas par rapport à cette décision bon mais mais donc donc monsieur Thiam. y' a y' a problème y' a plus que problème Il fekkee ni nga wax ni noonu la démé Sénégal il faut ñu xam ni nga wax non la démé xam nga lan moy problème bi y' a donc du faux parce que euh, Moustapha Guirassy <laughs> néna carrément il était au courant waxtaanoon nañ ci mom génn na def conférence de presse attaquer les détracteurs yi nga xam ñom la japp dañuy attaquer le régime. dañuy attaquer attaquer aussi ABP attaquer des gens yo voilà alors que mon néna il était au courant comme il était au courant donc ce que Ousmane a fait c'était du préméditation c'était préparé c'était organisé dañ lay wax li indi situation li tax mu metti moy su une question réponse non préparée amul dara lu nekk ci ginaaw comprendre. mais même si pour donc si si si si, si, si si, si, non supposition à d'accord à supposer monsieur est que monsieur à supposer que tel est le cas. si, comprendre ah. quelques jours auparavant le ministre de l'éducation ni man def si, euh, l'école euh, l'école catholique di à abbé waxtaan ak mom ci situation bi ñu ne le premier ministre bi muy wax warta woon wax par élégance su demee ba sujet bobu nek lu ñor mais na jox le ministre de l'enseignement moom mu génn wax ko fa Guirassy bu boobaa su fekkee ni amna avis divers mu wara trancher tranché ñu mëna ñëw ci mom mais naka ngay comprendre donc mom mu wax lolu ba paré ñu ne non dafa ñëw naturellement eli kan ci ñom mo wax deug est-ce que donc Ousmane la ou est-ce que Moustapha Guirassi mom mo bafoué li nga xamni modi dignité parce que il mérite mieux que de secourir Ousmane Sonko ci lo xam ne ni ci fautif en rien wax ji am fekk ko fa waxu ci place rien ne le concerne. d'autant plus que L'Oréal bi lauréat bi école privée école publique Le donc quand quelqu'un pose une question qui concerne école euh, privée il faut ni tey école privée ñoo dàq jàngale. non mais mais actuellement ni sa mhm. concours général L'école publique bi. réussite de fa c'est 84%. L'école privée 15%. ça veut dire que l'école donc la question publique ça veut dire école il faut que ñu gën ko joyantiwaat sax. Ah. c'est-à-dire pour nit ñi di jàngee c'est ça la grande que faisaient que faisaient les arabisans au grand théâtre pourquoi ils ont été invités. mais invité nga mais pourquoi. mais invité non mais pourquoi. non question simple non mais c'est-à-dire question non question mais pourquoi ils ont été invités. mais c'était répondu ma ils sont invités. parce que ay ay ay jàngkat la. non il doit y avoir un but bien bien précis pour ñu deful école française sax hein. mhm. c'est-à-dire ils sont dans le milieu de l'éducation war na am droit et leen ne leen ñëw leen ngeen fekkee concours général bi. d'accord est-ce que ñoom duñ leen ci boole sax. waaw non dañ ci war participer. Ça dit, c'est le droit au jeu. pour encourager pour que ñu bokk ci ñoom ils n'ont pas compris attends attends ñoom seen wàllu bop. les réactions qu'on a reçues. des gens yi nga xam ne ñoom ñoo ils n'ont rien compris ci raison yi tax ñu invité leen pour Nyom ils ont été utilisés à quelle fin. c'est-à-dire que le premier ministre c'est toi. mais quand vous invitez quelqu'un quand vous invitez quelqu'un c'est parce que c'est parce que am un programme bien défini. am nga un but bon xam da nga naan li la soxla pour dem ci. je veux que assister ni ak ñii ak ñii ak pour rendre hommage mais aussi pour crédibiliser l'événement et que bo jélé aussi temps de parole wala ngay dispenser mais di nga wax ni euh, l'école coranique mi ngi parce que dañu bëgg pour année prochaine mais y a rien de tout ça. donc donc c'était important opportun que ñom ñu invité parce que dañu yag plaindre ñom duñu nous ci concours concours yi nga xam au niveau national. d'accord té da leen wara a impliquer d'accord Moussa. donc alors man fi may fi may fi may je ne suis pas d'accord ok du tout fii ben établissement nekk fi ñuy discriminer doomu réew mi naan kii dafa war a jàng fa mm-hmm. quel que soit nag règlement intérieur bi fa am mm-hmm. parce que la conscience est au-dessus de tout est-ce que comprendre parce que avant que ñu lay jox sa agrément ngay ubbi sa école mm-hmm. dans lay tegal conditions Bonne ne woon man sama école joxe nga écolo kii Seydi Mariama Niass. Mhm. Rabiatul Awwal gis waaw kooku c'est-à-dire dafa ne man c'est-à-dire euh, enseignement religieux dama koy def sama mbir école mhm. mais est-ce que école tey gendarme est-ce que ñoom dañuy joxe dañuy joxe enseignement religieux. mais catholique je sais pas. bu nekkee ne amul. kon tey ku fa dem jànge ji am nga droit jànge fa. ñëpp am droit jànge fa. waaw voilà mais mais mais mais tey jii tey jii doon na gën a am solo. importance su fait se ni Ousmane lolu mu wax ak ni mu waxee dafa nek deug ci ñom tay ji nañu lan mo leen té voter benn loi que képp ko xam doomu julit nga dañuy rendre obligatoire nga dem defi école coranique c'est plus simple que de dire que ni ñëlé lu ñu nekk dañuy foqatu ñom seeni ay cër pour imposer ñu ñom seeni ay. non loolu amul sens donc même sa propre doom sax sa propre doom sax mënoo ko ko imposer. non attends waxumala ak nag waxumala xam nga bo amee ay promesses c'est-à-dire nuance dafa am. il ñun ñun on a fait que diagnostiquer les propos de Ousmane Sonko. essayer de comprendre le pourquoi qu'est-ce qui se passe dans sa tête lan la nek di xalat lan lañ nek di tek parce que su demee ba ni man même sama cœur attends dafa garaaw de même sama cœur amna dara non y' a confusion. mais que ñu xam ñom attends grand bul tia bul bul daw de. ñoom ñi ils ont imposé ils ont imposé à de ce que même à l'université mu am djuma mu am jàkka. ils ont imposé à de ce que mu am ay tarixa ay ñoo xam ne ay sunnit ak ay yenen ak yeneen ñi ngi fa et que on l'accepte donc yooyu nonu gis nga. ci tontu bu njëkk bi amna ku ko ci bind ci abbé yi. Mhm. que ci sen temps ñom ils ont imposé à de ce que.

tay contre-feu bi bi nga jouer suñu géopolitique aujourd'hui xoolal euh, Zawiya Malik bu États-Unis Imaginez tay ñom sommes diiné xam nga du du église trompette ko parce que nous duñu imposer ay mm-hmm. qu'est-ce que ça va jouer par rapport à un premier ministre l'on l'a bëgg le analyser mais pas sortir du contexte du débat. non pas sortir du contexte du débat ah. tu as parfaitement raison. ma lay parce que c'est un contre-feu qui touche la euh, l'école catholique. mais ça peut toucher l'international peut mhm. toucher géopolitique du Sénégal. parce que foo dem Amérique foo dem France am nay juma Jack, nay jàkk. Mhm. ay pays la du ay pays laïque du pays musulman du pays islamique. pays catholique le bouddhisme ak ñu gëmul dara. teewul respecté nañ les gens. koor su jotee da ngeen di nodd. da des di wajif. vendredi soo demee dix-huitième rue Mira ñi ngeeg foofu seen jàkk su waxtu julli bu jotee dañuy romb di def li ñuy def alors que dérangé wuñu tubaab bi pourtant ñu ngi koy dérangé pewu ko ci dara. mais mais mais xam nga tax wute. Hmm. foofu malgré ñu ngi leen di bàyyi ñuy ñuy ñuy ñuy pratiquer seen religion. Hmm. nen ko nen la ko seen diine waxee mais duñ déranger kenn te c'est le pourquoi. amul ay sonorisation. catholique bi dérangé wul kenn. amul ay sonorisation maanaam amul ay sonorisation yoo xam ne tey. nit ki day nelaw ngay ngay nodd di yuuxu. Mhm. booy nodd sa biir jàkk ji la yem. fii bon il ma semble que colon bi tey moo ni woon moom day noppaliku de 14h a 14h15 dee leen julli 14h15. Mhm. ñu bari léegi sax delloo noonu si si si si heure normal bi. di julli ay 13h30. juste pour dire ñun. loolu dafa yàgg fi au Sénégal mais malgré loolu amoon na cohabitation baax cohabitation entre euh, ñun ak ñi nga xam ne tey bokk na ñoom diine mhm.

ne dem len ngeen saga ji ce qui est contre nos valeurs et contre l'islam c'est pas normal ne na dimbale leen ñii hmm. bàyyi len nit ñi saga saaga la imam laa moo génn bokk ci magui yu Pastef muy parti bu mu encadré kenn ci ñoom jógul te l'islam dafa téré cadre bu ñaaw di génn ci làmmiñu jullit non loolu kilifa do c'est-à-dire que yaa une hypocrisie kilifa du taxaw naan dem len saga wa kon balaa muy régler voile bi mënul woon régler ji kii taxaw ne nañu saga fofu non la lay laa lay addo c'est fa la doon jëm sax di wax ni tay il n'est plus n'importe qui parce que ba mu nek dans l'opposition peut-être di tenir yene propos yi bon je peux dire yu yu violent hein par rapport ak régime bi di joxe ay instruction wala bon ay désobéissance civile loolu yëpp gis nañu ko fi tey aujourd'hui dafa am benen benen statut statut moy le premier ministre et le chef du gouvernement tay ji kep ku koy défaral ça dit dafa wara deuglu déglu warul topp maanaam euh, yenn ñi nga xamni bon ay yàqkat lañu comme exemple imam bi nga joxe fi man kooku dama japp ne yàqkat imam du taxu naan dem len dóor dem leen saaga loolu c'est irresponsable dans un pays normal ken amul droit d'or ken parce que yone mu ngi fi yone bu amul c'est-à-dire yone bu amul kon kon jeng lay nek d'accord té ñun ñi nekkoon dans l'opposition di xeex ak Macky Sall lépp dañu wax ni nañu respecté d'accord donc Ousmane Sonko tay en tant que premier ministre effectivement war na xoolaat bu baax ay propos am war na xool bu baax li nga xamni mom lay wax parce que bo defee xalé yi topp si loolu moom yàlla moo ko may mais aussi nit ñi il faut que nous réfléchir di bañ a par par par émotion c'est pas parce que vous n'êtes nit rek mu lay def la loo naka d'accord amener na si ñoo xam ne c'est seen àdduna hmm. seen aussi si si propos yooyu non surtout ceux qui sont euh, en fait les acteurs politiques. il faut que génie am conscience ni ñom aussi ay responsable non ken war leen def lo loo xam naka sudul non d'accord day neex lol